Euh, bale euh, fii daal normalement Bassirou Diomaye Faye cinquante six virgule treize pour cent Amadou Ba trente et un virgule pour cent Khalifa Ababacar Sall moo jël troisième ak quatre virgule zéro pour cent Aliou Mamadou Dia jël quatrième trois virgule treize pour cent Idrissa Seck am un virgule six pour cent donc c'est c'est ce ñoo fi lii moo fi nekk gum ci ay tendance actuellement donc on va euh, juste essayer de voir euh, lan moo euh, nekk actuellement ah lu lu xew Pape ñu jël Pape Moussa kon alo alo oui. mais Cheikh Pape Moussa. waaw kilifa gi fi toog maa ngi lay delloo naa la ko noo def. ça va alhamdulilah. Pape Moussa lu xew actuellement ci réew mi boo doon jàngat. waaw li li li li gars yi doon def slogan ndekete moom lañ traduire en une réalité politique. Mhm. mooy ndogu euh, voté xëdd xëdd voté ndogu ci bile. Mhm. booy def lañ ko ko waxee woon. Mhm. donc euh, les tendances qui sont en train de de de de se euh, foog naa ne gisuma effectivement lan moo mën a renverser cette tendance la qui va directement vers une large victoire euh, du candidat de la coalition Diomaye Président. Mmh. mais ban taxawaay peut-être le président kii di yow en tant que juriste yan taxawaay la ñi nga xamante ne nekk ci nguur gi war a am nga expliquer ñu clairement ñu xam fi ñu toll nii saa si tembe non fi ñu toll nii euh, ay tendance ñoom ñooy génn. Mhm. Euh, après la cour d'appel euh, dina joxe résultat provisoire le conseil con joxe les résultat définitifs. Mhm. mais man dama jàpp ne les dix sept ou dix huit autres candidats fi mu toll nii war nañ déjà affirmer reconnaître victoire de Bassirou Diomaye Faye. Mhm. parce que bul fàtte en c'était ay heures yii nii le président Wade woo le président Macky félicité ko. Mhm. parce que euh, boobu juridiquement joxe guñ woon les résultats définitifs. Mhm. mais euh, tendance yi ni mu génnee permettre na ko carrément mu xam ne euh, la victoire est de l'autre côté. Mhm. mais effervescence bi nekk ci mbedd bi qu'est-ce qui l'explique actuellement Pa xam nga li koy expliquer moom mooy Sénégal ci vote bi dañ ce am leneen loo xamante ne luñ doon régler waale la. Mm-hmm. mooy <clears throat> mooy euh, dafa mel ni dañoo voté ak amertume dañoo mm-hmm. voté ak euh, mer lépp loo xamante ne de deux mille vingt et un jusqu'à nos jours ñu koy teg ci deru Ousmane Sonko ñu ngi koy yàq Ousmane Sonko ñu ngi koy def lu bon di ko wax lu bon mm-hmm. askanu Sénégal dafa jóg fompal ko ay rongoñam donc kon tey jii nii euh, Diomaye Faye pour Diomaye Faye xam nga ne Bassirou Diomaye bu doon moom kese la xëy na résultat yi mën na bañ a demee nii. Mhm. alors donc le seul maître à bord le seul maître du jeu moom mooy euh, Ousmane Sonko. Mhm. fal na ay maire fal na ay député tey fal na président de la République Sénégal nañu booloo ne gàcce ngàllaama Ousmane Sonko. Mhm. ci taxawaayam mais aussi ci ngoram ci sincérité par rapport ak li nga xamante ne moom lay doxal. depuis euh, qu'il est entré en politique. kon tey Sénégal danoo jóg. pompal rongo Ousmane Sonko ci lépp loo xamante ne mosoon nañ ko ko wax ci lu ñaaw mosoon nañ ko ko wax ci mbonte lépp loo xamante ne bëggoon nañ jël ay tuuma ak diabolisation manipulation teg ko ci kaw deru Ousmane Sonko askanu Sénégal jub nañ pompal rongo Ousmane Sonko fajal ko meram lépp loo xamante ne euh, Ousmane Sonko jàppoon na ko ci lépp loo xamante ne ay nit dañ ko jëloon di ko teg ci wax ju ñaaw ci wax ju bon ak ay ñooñam ni ko wéykat bi waxee dañ koo tooñ tooñ ay ñooñam tooñ ay waa këram tooñ léppam tey jii nii loolu la askanu Sénégal jóggoon pour fajaale en euh, benn vote. Mhm. mais mais Pa Moussa ce qu'on avait vécu en deux mille dix neuf ñu jékki-jékki minuit ñoom ñu génn wax euh, gis nañu ñu mel ni Anita Diop naan laissez les jubilés avant minuit on est vainqueur loolu scénario boobu est-ce que c'est c'est pas possible c'est pas encore possible. bu ma ne li ñu li ñu dundoon deux mille dix neuf jékki-jékki tendance favorable à l' opposition minuit jot ñoom ñu génn def seen déclaration gis nañu ñu féete ci ñoom ñu mel ni Anita Diop naan laissez les jubilés à avant minuit on sera euh, vainqueur est ce que mënuñu xaar scénario boobu. Vito waaw Vito. Mhm. dañuy dañuy wax lu sérieux quoi waxuñu ay waxu faux profil yuy wax ay waxi dox. Mhm. vraiment euh, je ne veux pas m'attarder sur kan moo fi sañ a jóg naan day conférence de presse. Mhm. les tendances qui se dessinent là avec les grands centres urbains nga gagné Dakar gagné Thiès gagné Pikine gagné Guédiawaye gagné Mbacké gagné Ziguinchor gagné Saint-Louis fan la nit war a mën a jaar mooy soppi la mbir. Mhm. nañu nangu dogal. Mhm. waaw kay ñoo donc kon man euh, gis nga gis nga faux profil yooyu noonu. Mhm. moom moo moom moo yóbbee tey jii di régime bi nekkoon ci acharnement bu métti ci kaw Pastef. dëgg la lan la leen mujj jural. kon képp koo xamante ne jugoon nga pour tegi tuuma ci kaw Ousmane Sonko. Mhm. yàlla daf ko ko setal sur le plan judiciaire. Mhm. yàlla gën koo wanewaat sur le plan politique et du scrutin aujourd'hui mhm. wane na ba faw mais askanu Sénégal Ousmane Sonko la ñu def seen xol. même question que Clédor moom la ñuy tàggatoo yan défi moo ñuy xaar maintenant fii ci biir Sénégal à partir de demain. wa <laughs> non bëri na bëri na bëri na parce que euh, au-delà de des des règlements de compte politique au-delà du de la réparation des bi ñu teg Sénégal. mais Sénégal dafa nekk ci tournant bu décisif. Mhm. am pétrole am am zircon am euh, or am tous les ressources mais am aussi une ressource humaine de qualité am des jeunesse une jeunesse valide pare pour war a mën a am toutes les potentialités pour accès au développement. Mhm. oh dafa dagg dafa dagg ayca euh, Pape Moussa Sow moom mi nga xamante ne juriste. bi nga xamante ne moom tamit vraiment ci combat bi moom euh, euh, yàgg na ci du ma ne combat bi sax waaye yàgg na doon ay biir une pluie tombée en hors saison presque partout au Sénégal est un signe de Dieu le grand juge euh, mais espérons que que que euh, dina dina continuer noonu incha allah Pa Moussa dafa dagg la dernière question que je lui ai posée c'est juste quels sont les défis qui sont vraiment en train euh, d'attendre ce pays parce que moi je veux vraiment maintenant qu'on nous qu'on nous qu'on arrête de parler politique on en a assez vraiment euh, vu de toutes les couleurs euh, la politique dans toutes ses facettes dundee nañu ko nu ne gisee nañu ko nu ne léegi nag li des mooy takk ndigg yi waaw takk ndigg yi takk dàll yi waaw euh, sol bopp yi te te te yeewu dem euh, li wax ne on à l'ère du possible lu impossible amatul fu mu toll nii développement alo no mais c'est pas grave je pense que il a il a dit l'essentiel mais bu dee mën nga ma jaa jàppale vi bijou aussi ci vidéo docteur Diallo yi pour mu mu dugg parce que moom waa parce que moom tamit mu ngay jooy jooy yu métti euh, yàlla bu yaakaar tas. waaw loolu loolu loolu laay ñaan fi mu toll nii saa si tembe selon euh, nos euh, de euh, la RFM euh, Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye gagné na yile élection waaw euh, au premier tour daan nañ ñu gëmloo nag ne Sénégal kenn mënu fi gagné ay élection foofulee Euh, ci premier tour mais on va essayer de de voir lan mooy lan mooy xew fii ak minuit di jot incha allahu énormément de de chose yoo xamante ne euh, mën na mën na am mais nañu xam ne euh, yàlla yàlla noppi na démb tey soog a ñëw ñu naan Amadou Ba gagne se région à l'heure actuelle nous sommes à quarante cinq contre quarante deux allons jusqu'à zéro heure ah, waaw waaw nañ dem rek nañ dem. %e